consensus notamment si mbirum parrainage bi mais si kaaw Karim Wade Khalifa Sall si mu mel nii euh, mu ngi gën a mi ngi gën a leer euh, Ousmane Sonko gros point d'interrogation yéen moom dialogue woo leen mais ni ngeen gisee processus ba nu mu ba nu mu àggee fii nii ban ban regard ngeen si porté. xam naa damay damay damay damay jël damay jël après xam naa cette émission peut-être su may toogati ci plateau dafay nekk un interview. Mhm. à moi seul, mm-hmm. avec le journaliste. Mm-hmm. Mais sérieusement, je ne vais plus participer au débat. Mm-hmm. Ça, je le déclare ici, ba peut-être waa Benno Bokk Yaakaar jóge ci réew mi. mais lu tax loolu. non non non parce que ça, euh, euh, Ousmane yaa Fatou Diagne mi c'est une sœur. on s'est connus depuis 2011. tey ñu toog fii on parle du pays on parle du Sénégal. on est très sérieux mu taxaw wajjax wajjax yàq kanam gi da ngeen yëfu ñàkk jom man maa ne et c'est un punchline j'ai donné un exemple buñ lay dóor sa kër te amuloo kenn ku la fa wallu di nga génn ci mbedd mi uti wallu man maa ko wax. loolay dëgg sax. te Sénégal ku ma xam-xam ni ñàkkuma jom donc je pense que ni sérieusement am na loo xamante ni kenn dootuma ci dégg wala mu ma ciy gis. toog ci plateau yuuxu xëccoonte kàddu jaay maa gën a dangle après su ma ñibbee dinañ ma ne wuu gars yi mayoo leen dara il faut qu'on arrête cette façon de faire de la politique mon cher a parlé tout à l'heure de la manipulation bi nga xamante ni moom la politique yi nekkee ak population yi ba brosser ale ci la société civile je suis pas là pour prendre la défence de Alioune Tine ni de qui que ce soit mais ñi nga xamante ni xam naa leen te maîtriser naa leen. Mhm. et je les suis te ñi may suivre ñëpp. Mhm. gisuma benn société civile bu nekk dans la manipulation. Mhm. xam nga ñoom politique yi dañu nekk ci manipulation ba dañuy manipuler sax seen bopp. dañoo bëgg manipulation ba dañuy manipuler sax seen bopp. xam nga yu bëree bëri jàll na fi. quand on veut un débat soit sérieux dañuy wax ci ponk yi ñu laaj. te bàyyi tamit am na loo xamante ni chaque fois dañ ma naan euh, tu es euh, da nga bokk Pastef parce que bu ñu waxee lii dugg na fii génn fii kërëb kërëb mais du toog dans un plateau boo xamante ni aussi dañ fay wax lu leen neex après ma couche ma ma dem comme on di qui ne dit rien consent xam nga bu bu la ministre de l'intérieur man dama fogoon ni. sérieusement ay booyu APR ñoo ko doon wax mais après bi ma gisaatee le ministre de l'intérieur ne Ousmane Sonko moo ne ku dee sa yaay juraat génn leen dee bi seen yaay juraat sérieusement dama après dama dem xooli ji waxu Ousmane sonk bi quoi ma gis ni Ousmane Sonko dafa ne comme ni ko xale yi di waxee quoi ku dee sa yaay juraat waaye du soobee yàlla dee sax du ci am duñ àgg sax ci ngeen di dee ñoom xam nañ ni loolu la wax mais toujours ñu ngi continuer et effectivement Ousmane Sonko def leen indi ci débat de ngeen nekk ci débat xastante vous parlez que de Sweet Beauté vous parlez que de je pas quoi yéen Sonko ci vie privée am Sonko ba mu defee lii ba mu defee lële jamais ngeen ne Sonko moo jubadi te les Sénégalais li ñu soxlaa Sonko ba toppee ko ko ba tey jii mu nekk la personne la plus aimée et influente dans ce pays euh, jikko yooyu la njubam 15 ans bu mu def ci fonction publique un franc malien randalu ko accusé rek ñun xamuñu accusé lool moo tax ñun xamuñu accusé yaay bi ngay wax sànq ankay ah, dagg nga ma kat non kilifa déet ankay ah, ah, lañ nekk wax naa nga dagg ma soo waxee soo waxee dama lay dagg xam nga yaay xam na ni man maa ko gën a nekk al danke maa ko gën a oh, man man nekkuma ci nekkuma ci boobu non non dama ay ay ay yéen waxtaan xam nga suñu waxtaan ah, en tant que naw ma waxee ngeen dagg ma su ngeen waxee dama ah. donc bu leen ma xoolee ni fii jigéen moo fi toog wala dara mais on est des citoyens yu toog ay naw la fi toog waaw loolu moom du problème ay yaa daa yaay daa pànk loolu may waxi lan man pànkante indi ma fi de da ngeen wax seen xalaat ma wax sama bos te am naa fulla yi nag comme moom téléphone ni mu ko waxee bu ñëwee si débat ku wax jox ko day wax delloo la ñun aussi bu ngeen ñëwee ngeen wax lu ngeen loo xam ne lu fi nekk ñun tam dañuy wax li ñu xalaat duñu offensé wuñu fi kenn on discute sur les faits moo yi génn ci gémmiñ yoo leen traduire on n'a pas personnalisé le débat voilà xam naa ni tey moom c'est ba pare c'est un jour spécial le 23 juin. Mohamed Dramé sérieusement. Mhm. non après pas un mot si conclusion dialogue bi nga. non sérieusement ah, euh, suivre ma Macky Sall suivre ma Macky di woote bay wax ci ay conclusion dialogue ak dialogue. Mhm. c'est pas un dialogue c'est un deal c'est clair mais un deal ne passera pas ici dans ce pays un dans ce pays. il faut qu'on respecte les Sénégalais. C'est pas parce que tu as le micro, c'est pas parce que tu as des privilèges ou des avantages, tu dis tout ce que tu veux. Et les gens te laissent après partir comme ça. boo demee nga ne gis nga bi ma toogee ci plateau bi j'ai bien représenté euh, le parti saaga naa fa toj naa fa yuuxu naa fa. dil bi dil ak kan la ak lan bi. Euh, Mohamed Diallo ñun tooñ nga moom ba ci kanamu yàlla sérieusement non sérieusement yaa faatu mii nii 2011 laa xamante moom keroog maa ngi dégg pour indi une correction nga naan ko tu étais la marraine de Y'en a marre non elle a jamais été la marraine de. ndax yàlla nga leeral ko. musul bokk ci Y'en a marre. waaw ndax yàlla. yaa Fatou elle est venue bi ñuy def foire au problème. Mm, ok. Ah, mu ñëw ba ci man. place de la nation. place de la nation Simon moo ma indi. Simon moo ko indi. Ah, introduire ko mu ñëw ba ci man. félicité leen félicité ñu. waaw ah, kay. ne dama bëgg ay góor. kay te bi Sénégal di jooy. Mm. ñàkk ku ko jooy la yéen laa gis ngeen jóg taxaw. ci injustice bi nekk di am. exactement. <coughs> on a gardé le contact. waaw. avec le respect. voilà mu respecté ma ma respecté ko. waaw. mais ce respect. ne doit pas être en underground. tu as parlé de nawle dans un débat bu ñu toogee yaay man xam naa sa capacité. tu vaux plus que ça. tu vaux plus que ça. Kilifa le débat c'est pas moi. non non non le débat c'est pas moi man tu n'as pas de leçon à me donner xam nga wax ji man j'ai pas personnalisé le débat j'ai parlé sur les faits da nga joxe exemple ne nit ki bu ñu lay door sa kër sañ ngaa daw génn man la ñun de bi ñu yar suñu kër. dañ ma dañ ñu yar si ne ku ñuy dóor nga daw génn sa parce que da ngaa ñàkk jom loolu nag c'est les faits c'est pas la personne donc vraiment bu ñu personnaliser débat man amoo conseil boo may jox man li ma war a def xam naa ko li ma ne maa ngi ci les combats que je mène te damay remercier alhamdulilah rabbi alamin ba nga toogee fi tey leer parce que ñu bëri moom mii du dégg seen affirmation grave seen lépp nag lii seen lépp lii la yaay Fatou yaay Marenu yaa naa maar yaay Fatou yaa ko xam seen yëpp lii la du ngeen wax lu leen leer du ngeen wax lu ngeen xam mais dama bëgg leeral ñu avancé euh, léegi kilifa maa ngi woon si yaa ngi woon Dilop man man la laaj dil bi ça consiste à quoi non mais non bu ñu ñëwee si laaj c'est xam nga boo gisee mu ne si laaj c'est pour éviter que je cherche pas à t'offenser c'est pour éviter que mu nekk vraiment je cherche pas à t'offenser non jéem ma ko sax voilà je ne cherche pas ça mënuloo ko. xam nga ma bu baax. c'est ça dañuy débat la. débat la dañuy wax. je ne veux pas que damay wax Cheikh Omar di ma dogg dama bu waxee. bu ma waxee dagg ma yow aussi wax naa nga dagg ma. non non mais daggul yow ak Cheikh Omar la. mu su dee dagg amul da ngay wax léegi fii ne. bu kenn daggati kenn waaw léegi dagg dagg dagg amul. voilà c'est que dama bëgg damay bañ mu personnel moo tax ma bëgg ma. non exactement le débat n'est pas personnel le débat n'est pas personnel du tout on n'a qu'à parler sur les faits. merci beaucoup yaay merci beaucoup yaay voilà man nag je suis à l'aise avec n'importe quelle personne man xeebuma kenn ñàkkaluma xel xel kenn pour débat bu ñu ma woo damay ñëw toog d'accord et je ne regrette pas te mm-hmm. débat bu mënti am nag fii ba tant que ñu ngi si kii politique dañuy continuer toog si débat yi c'est vraiment dommage léegi poursuivre si sa kii rek s'il vous plaît c'est vraiment dommage moo tax may insisté poursuivre élan bi nga nekkoon dugg sur le personnel quoi euh, ah donc maa ngi doon wax si ah. dil bi euh, ça consiste à quoi concrètement tu sais euh, Macky Sall ak ñi mu àndal mm-hmm. seen dara daf ma saful dégluwuma leen lijjantiwuma leen xooluma leen parce que ils n'ont aucun respect sur les Sénégalais ok. mais sànq da nga koy euh, le dil. Mhm. ci sa bopp wax nga ko ci sa damay for di ramasse ñu naan ay le cas le cas de deux cas réglés je sais pas xaw ma. Mhm. Ousmane Sonko point d'interrogation. jàpp man lu ay comploteurs toog di ko décider ma tey un résultat on est 17 millions de Sénégalais on est 17 millions de Sénégalais on parle de dialogue boo xamante ni pour xool kan mooy éligible wala kan moo warte éligible déjà ki woote dialogue il n'a pas droit à appeler à un dialogue amu ci droit amu ci droit bi mu defee haute trahison ci lépp haute trahison nag ci lépp donc kooku man du ma woo ma koy wuyu ji pour commencer et puis il va dialoguer sur quoi on te dit que la comme ni ko Cheikh Yérim Seck waxee ne quitte à ce qu'on tue les quatre-vingt-dix pour cent des Sénégalais mais moi j'ai dit que c'est un aveu Yaakaar xam nañ ni les quatre-vingt-dix pour cent des Sénégalais la participation de Ousmane Sonko ci élection 2024 yi c'est une demande populaire c'est le peuple qui en réclame c'est une demande des Sénégalais nga ne kooku da nga koy isolé da ngaa comploté yoo yaay da ngaa dialogué yoo yaay c'est peine perdue ñii la Sénégalais yi déglootul Sénégalais yi seen bopp la ñuy déglu li ñu naan quand l'État abuse du pouvoir qui lui est confié ou le détourne à son profit le contrat est rompu ñii looloo leen dal te comme ni ko Ousmane Touré waxee ñu naan dafa violent ay wax yu violent la la résistance devient en retour un droit ñii dañ leen a dénk dénkee leen ci anam goo xamante ni ñu traverse vents et marées dénk leen ci foo ci ci jaar-jaar dénk leen ci ay événements yoo xamante ni lu nekk xew na fi boddi nañ ñu saaga nañ xas nañ ñu taqal nañ ñu mayonnaise lu nekk jiñ nañ ko. oui c'est aujourd'hui qu'on est qu'on est des manipulateurs mais en 2011 2012 on n'était pas des manipulateurs c'est aujourd'hui qu'on est on est considéré comme des pro euh, euh Ousmane <coughs> mais en 2011 on était considéré comme des pro Macky Sall parce qu'on faisait le boulot oui pour après ñoom ñu ñëw jëriñoo mais la woon moo Parce que maintenant, ce peuple-là est mûr. Ce peuple est mature. Ce peuple sénégalais bi nga xamante ni moom mooy defal boppam justice buñ ko ko jox defalul mu defal ko boppam. Et comment? Qu'on arrête de dire que les Sénégalais sont violents ou les jeunes qui sortent pour manifester ils sont violents di leen traiter de rebelles di leen traiter de voyous dañuy casse dans tous les pays du monde manifestation day am casse. dañuy dañuy dañuy taali dans tous les pays du monde manifestation dañuy taali pël tous les pays du monde je dis bien on sait très bien que ni bu manifestation amee comme màggal Touba wala euh, gàmmu wala aji dafa am ñuy gàmmu ji ak ñuy raas pour manifester gis nañ leen dañuy am ay objectifs te seen objectif c'est quoi c'est faire face taxaw di jàkkaarloog force de l'ordre yi ñu leen di sànni grenade lacrymogène ñoom ñuy def ay jet de pierre mais ñu jóg nag pour autre chose looloo tax ñu naan évitons di yegg ci ay manifestation parce que à chaque fois liñ ciy bañ mooy dootoo ko contrôler moi je descendais dama doon wàcc 2011 le 23 juin ci heure bi bi ñu retiré ticket bi ba pare dama dem ma tëdd suma kër ma nelaw te tey jii lan lañ après chaque manifestation kenn du ñemee taxaw kenn du ñemee fanaan sa kër parce que dañuy dem seeti ji la. ci tàng-tàng bi ci daar daar damay ñëwaat ci waxu Cheikh Ousmane Touré bi gis nga dëgg moo neex yàlla ñu ne boobu ba léegi ay taxawaalukat yu yor ay arme de guerre gisuñu leen et malheureusement pour notre police bi nga xamante ni la police a accepté cette conférence de presse qu'elle ne devait pas faire à mon avis parce que notre police est respectée bu ñu demee tey ba tey jii ci discours Aïssata Tall Sall bi dafa jàllax police quand on dit que ni nekk leen une police républicaine une gendarmerie républicaine lii moo tax ñu koy wax parce que les politiques ils sont capables de tout dañuy dugg ci barigo diwtiir xonk tout génn weex li Aïssata Tall Sall wax tey c'est très grave c'est très dangereux mm-hmm. Mm-hmm. que ni policiers yi ñoom ñooy rey manifestant manifestants te légitime défense la ñuy def man de policier yi ma gis man ñu sol uniforme police ay lance lacrymogène lañ yor mais civil yi ma gis nag ay arme de guerre la ñu yor di ko tiire ci kaw askan bi civil yooyu la ñu wax ñoom gouvernement bi bi ñu génnee ne ñooñu ñooy ñi ñu rax d'accord na garaawul dañ ñoo rax léegi dañu bëgg ñoo ñu rax ngeen génneel ñu leen effectivement et dans l'immédiat ñu jàpp biñ ñu ko fi waxee en mars 2021 dañ ne leen ok te te te te après amaat na yeneen événement gars yi dañu fàtte mais du juin rek amaat na yeneen ak yeneen à chaque fois comme ni ko waxee Ousmane Sonko war a dem euh, convocation ou procès ñu yëngal dëkk bi boo yi génn manifester ñu rey ci deux wala trois mais mois de juin bi dafa dure benn vingt quatre heures boo xamante ni dañoo gis ñu mës gis lu ñu mësul woon xalaat ni dinañ ko gis dem ba Sénégal ñu mel ni Afrique du Sud wala dem ba Sénégal mel ni Centre Afrique ñuy gis ay civil di téye ay armes de guerre di tirer bim bim bim bim bim mais saway ñu génn ci taxaw di ut ñu ñu accuser sénégalais yi nag fajal seen bopp àdduna bii ñun ñëpp a ko bokk le monde est un village planétaire kon bu ñu ratifié lu ñu bokk ak waa adduna bi yëpp ñun dañoo ñàkk jom pourquoi on a ratifié lan moo tax ñu dem ratifié kon dañoo ñàkk jom donc je pense que ni parlons pas de dialogue ou de je sais pas quoi d'accord de toute façon comme point de vue bi ma ci am ak euh, kii bu libre bi ma ci am mooy que ni mm-hmm. quand on ne me respecte pas kenn du ma ku ma respecté wul du ma exiger ma respecté la. d'accord je respecte tout le monde. fi respect doomu aadama bi jeexee man foofu laay commencé di ko jox respect ba ca ginnaaw. d'accord mais kenn du xëttu suma respect ak koo mën a doon nag. Euh, Aïdara le Djolof dès le départ am na ñu jàppoon ne ce n'était pas sincère ñenn ñi jàppoon ne sax dès le départ c'était juste.